ay ca doore ko Ismaïla Madior Fall ci tribune yéen kaay a nangu dafa yombali duma yéen kaay groupe des médias nee na ministre bi mujj naa nangu de mujj naa nangu sàkkal pexe ganu sàkkal pexe Ousmane Sonko Ismaïla Madior Fall avoue le crime contre Sonko tribune ni Sonko du bokk déedéet du bokk de il a été déchu de ses droits mënatul bokk dañu ko rajjee ci bi Juan Branco sa yor di ko weddi moom avocat bu Ousmane Sonko nee na ministre bi li mu wax tegu ko fenn tey la wax ni Vox Populi ko déet nag saa waay say naadu yaa wax ni kon fatt nañu fépp nag mbooleem démarche boo leen manti def rek jàppale na ko ngir Ousmane Sonko mën a génne mu jëwul fenn buntu yi ngeen xam yëpp fëgg ngeen ko foo leen yaakaar ak koo leen yaakaar dem ngeen fa waaye France daal di xëddeen tous mu jëwul fenn xuwaan dama ne waxal wax ji manipulation mën naa ñàkk le témoin mooy yéene kay ne xuwaan kay ñaani bañ naa la woote nangul benn yoon li Ismaïla Madior Fall wax Walf Quotidien ni condamnation définitive bu Ousmane Sonko bii dama ne ministre ba na ma ko nii kat lu mu si jublu nee na solution na dem nañu fépp nag nag seeti nañu képp ku ñu xam waaye fàtt nañu fépp solution amatul France ma ñu yaakaaroon sax dafa maanu si coow li xanaa kon plan B jot na waaw jot na nag su lay Diop ci lemandaa mandat nee na caaxaan baaxul bàyyi leen seen xel mi ngeen di fawee ñun benn plan la ñu am muy PROS. nu n'avons pas de candidat de substitution encore moins de candidat de remplacement ñu xamee ko noonu laa la wax wax maître Ciré Clédor si libération ak critique yéen kaay li nga war a xam da yow Birame Souleye Diop moo di sa candidat boobee ngay bàkkoo jàppal ne kon na de xiif na sonn na mi ngi ci fanweeri fan yi nga xam ne ni mu ngi koy xiifal avocat ba nee maa ngi wax rek de maa ngi wax rek waaye nag yéen a ngi seetaan yéen a ngi seetaan Ousmane Sonko sonn na de fii mu nekk nii soins médicaux ya ñu koy defal doyatu ko l'état de santé de Sonko a atteint un waa baax na bu baax mooy sa bopp yootul mobilisation de nee na jóg sa ba mu teelee ku may seet fekk ma Tamba Kumpentoun Koungheul Malem Odar jàpp Kaffrine maa nga sa yoon ba de maa nga sa wutum parrainage ba njiital gëm sa bopp nee na boo sekkeex njuuma da ngay jël say matukaay fattal fépp laa la wax ni teelal jóg dama ne dem naa laa la wax damay dellu saafonte askan wi nga xam ne gëjuma si ñoom man ak ñoom doy élection moo ñu boole ndax duma politicien professionnel xaal ba élection jot ngay doo a jóg déedéet min naa loolu dëkk kaw gi nag bugaan ngay dani mooy wax de nee na man dara duma bett lii rek moo tax nag ma jóg dem wuti jaay seet laa lor fekk ma ca àll ba président Macky Sall ni ku may seet tey jii de fekk ma sa Touba Vox Populi ne président Macky Sall de tey jii lay dem sa Touba waaye nag yéenekaay bi nee na amul ak teertu de ndax xalif si boppam da koy tere yéenekaay bey wax nee na am nañu waajaloon ngir nag président Macky Sall bu dikkee ñu daal di koy sonkoriser aha kay président Macky bu naan cëpp Touba gaañ yëkkati naan Sonko Sonko su yeeboo ñooñee nag ñu toog xaar te xam ne boobu du jàll ndigal ba jib na xalif ba nee na bëggul mumbaay bëggul xumbaay lépp si njekk rek nag ak dal kendaluk président Macky Sall foofee sa Touba de kendaluk bilan lay doon ndax lépp lu nga xam ne def na ko ca Touba tey ji daañ ko waxtaane ay milliards la fa investir programme d'urgence ngir mbënd mi 27 milliards autoroute Ila Touba 416 milliards direct news ne waxtu bilan la sa Touba 100 milliards yu mu dugal kon si assainissement ba ndax boo leen bëggee dégg-dëgg de bii mooy ziyaaram gu mujj nag en tant président de la république ñu dëgmal màggal laas ni Macky melee bouchée double le soleil yéen a kaay di ka feelu nee na Macky Sall mii de liggéey la woote nee na temps amul nanu xool lii jàmp ñëpp ñu nekk ca te bàyyi coow li coowal politique bi laa bëgg ñu tekk ci suuf les écoles nii ndigal la jib na Macky Sall nee na ay ministre liggéey rek liggéey laa woote laa la wax nii il faut travailler toujours travailler encore travailler liggéey rek la woote nee na liggéey leen ba le 2 avril bés bu ñuy pare ci nguur gi nañu bàyyi coow li te liggéey l'évidence yéene kaay nii président Macky Sall mu ngay accéléré te bu dee màggal gi de moom président Macky Sall si le mandat ay directive nee na logistique ak bu dara manqué ci màggal kaneen ko joxe ay directive wala kaneen ko joxe solution ngir lu fi téye ndaw ñi ñu bañ a mbëkki di teneng seen directrice général bu agence nationale de l'aquaculture nee na bu ñu bëggee téye ndaw ñu fii ci réewum Sénégal ñu bañ a jël gaal gi dama ne nañu yëngu si mbéyum jën gi yarum jën gi di aquaculture alternative bu mënta ñàkk la ndax boo leen bëggee dégg dëgg kat at yi wees ay gaal la ñu doon wax ne ñooy tëmb ngir mbëkki waaye fi mu toll ñuy ñoo ngi ci 30 000 lii rek nag moo tax ma taxawal benn programme spécial jagleel ko kon nappkat yi objectif bi nag moo di 4000 tonnes ñu war ko ci ay jën emplois ñu am ka ca ko la sa des yootul la l'enquête texte le quotidien yéen kaay nee nañ coup d'état amatina de aha kay la yoon sa gabon la militaire yaa foqati nguur ga Ali Bongo président ba ñu jël ko rek résidence doom jax ay complice ñu ne ràpp tëj ñu dikkaat fii ci Sénégal ñu takk jóg wutali Touba gaañaa nga ca wàccaay la de ilaa Touba rek le peuple quotidien yi tey ma xamal leen doomi Serigne Touba yi nga xam ne jotuñu toog si jal bi Serigne Ibrahima Mbacke ma nga ca Cheikh Souhaïbou ma nga sa moom la ñu daan wax